alhamdulillah alkarim silmilan alastifaad bi furud wa sunan sakartuhu lianna qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani alhamdulillah alqaa'il fi muhkami tanzilihi واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وخير خديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فوحدة الأمة الإسلامية هي اجتماع المنتسبين إلى الإسلام على أصول الدين wa qawaacidihi alkulliya wa amaluhum maan li iclaai kalimati llahi wa nasri diini qaala taala kuntum xayra ummatin uxrijat linnaas taamuruuna bilmacruufi wa tanhawna an ilmunkar wa tuuminuuna billah walaw aamana ahlulkitaabi la kaana xayran lahum minhum almuminuuna wa aktharuhum alfaasiquun وقد تواترت النصوص الشرعية الآمرة بالوحدة الحاضة على الائتلاف الناهية عن التفرق والاختلاف ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا wa qaala aydan wa atiicu llaha wa rasulahu wala tanaazacu fa tafchalu wa tadhaba rixukum wasbiru inna allaha maa alsabirin fa aasaratu alijtimac walwala taqumu ala alimaani billah walmuminuun walmuminaat baaduhum awliyaau baad wala yataxaqaqu imaanu alinsan illa bi acaadati tasisi calaaqaatihi wifqa hadihi rakiza imtisaalan li qawlillahi taala laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmi alaaxir yuwadduuna man xaadda allaha wa rasulah walaw kaanu aabaa'ahum aw abnaa'ahum aw ixwaanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim aliman wa ayyadahum bi ruuxin min yaqulu cheikhuna radiallahu taala anhu fi taakidi dalika wa an yuxab wa an yuxiba lil ilahi dil anaam shaxsan wa yub wa yub wa an yuhabba lil ilahi dil anaam shaxsan wa yubxad lahu laa lil xutaan wa axbib al muumina lil imaani wal tubxid al kaafira lil kufraani wa taqumu al waxda al islaamiya ala ususin matina minha waxdatu al aqida fa aqidatu al muslimin fi llahi wa fi jamici arkaani al islaam waaxida amana rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi walmuminuun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufariqu bayna ahadin min rusulih wa qalu samana wa atana ghufranaka rabbana wa ilayka almasir wa taqumu aydan ala wahdati alsha'air walshara'ic فجميع ما يطبقه المسلمون في عباداتهم من شعائر جملة واحدة لا تختلف qaala taala shara lakum min addiini ma wasa bihi nuuxan walladi awxaynaa ilayk wa ma wasaynaa bihi ibrahima wa muusa wa isa an aqimu ddiina wala tatafaraqu fihi allahuma jcalna min alladina yastamacuuna alqawla fa yattabicuuna axsana rabbana aatina fi dunya xasana wa fi laaxirati xasana wa qina cadaaba annaar ñoo ngi sant suñu boroom mi nga xamee ne moo wax ci téereem bu tedd bi na yéen jullit ñi na ngeen mooy ci buumu buumu yàlla te mooy alquran te ngeen bañ a tàqalikoo te ngeen fàttaliku xéewal gi nga xamee ne moom laa leen defal ndax dama leen a def ngeen di ay mbokk ginnaaw ba ngeen nekkee ñoo xamee ne dañ daan xeexante seen biir daan fañante noo ngi koy sant di sukkandiku ci moom di ñaan ci moom ndimbal di muslu ci moom suñu bon yi bakkan di seede amul benn buur boo xamee ne jaamu dina jur njariñ ñàkk koo jaamu di jur lor ku dul moom di seede ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndawam la jaamam la yàlla na yàlla yokk ci moom xéewal ak mucc ak képp koo xam ne jaar nga ci yoon wi mu mbokk jullit ñi suñ waxtaan dañ ko bëgg a jëmale ci bennoob jullit ñi jullit ñi nekk gi nga xamee ne moom la nekk benn buñ waxee ne jullit ñi benn lan liñ ci jublu mooy jullit ñëpp képp koo xamee ne ci lislaam ngay askanoo rek ñoom ñëpp ñoo bokk pas-pas pas-pas bi nga xamee ne diine lislaam ci lay tegu jullit ñëpp ñoo ci maase bokk jullit ñëpp itam ñoo bokk di jëf ngir euh, lislaam nekk ca kaw ngir yëkkati baatu suñ borom loolu lépp loolu itam jullit ñëpp ñoo ci maase waaye jullit ñëpp ñoo bokk ànd ngir tasaare lislaam loolu kenn wutuwu ci loolu moo tax suñ borom di wax ci alquran ne maa leen def yéen jullit ñi ngeen nekk xeet bi gën ci xeet yi ana lu tax ndax yéen ñëpp yéene maase di dégle lu baax di tere lu bon yéen ñëpp yéene maase gëm suñ borom yéen ñi nga xamee ne ñoo weddi suñ borom nee na ñooñu day gëmoon suñ borom moo gënoon moo gën ci ñoom waaye nag ñu ci ëpp ci ñoom dañ koo weddi kon loolu dañ ci dégg ne bennoo gi nga xamee ne jullit ñi dañ koo nekk benn ak ànd gën ànd fa mu tegu mooy ci gëm yàlla ci gëm yàlla ci la tegu ak gëm ponk yi nga xamee ne mooy ponk gëm yàlla moo tax suñ borom di wax ci alquran ne jullit ñi day ñoom ñëpp benn lan ñoom ñëpp ñoo ànd nekk ay alliés Sëriñ Tuubaa loolu lay li nee na bokk na ci li nga xamee ne dafa war ci jullit ñépp mooy nga bëgg képp koy bëgg rek nga bëgg ko ngir yàlla yàlla mi nga xame ne moo leen boole waaye képp koy bañ itam nga bañ ko ngir yàlla te sag bëgg ak sag bañ bañ a tegu ci poyetam àdduna wala alal nee na jullit bi nañ ko bëgg ngir ngir ne dafa gëm yàlla waaye yëfër bi nee na na ko bañ ngir dafa wedd yàlla kon ànd gi nga xamee ne jullit ñëpp ñoo ko ànd nekk benn ci loolu la tegu ci pas-pas ndax pas-pas bi nga xamee ne moom lañ am ci suñ boroom ci ne suñ borom kenn la moo sàkk ñëpp amul kenn koo xamee ne bokkaale na ak moom nguuram wala ay meloom wala ay jëfam loolu ñun ñëpp ñoo ci ànd nekk ñoo ci maase ànd waaye itam ponki gëm yi nga xamee ne sag lislaamu kenn du mat a mat lu dul def foo gëm muy gëm ne yàlla moo yónni ay yonent yàlla moo wàccee alquran dëm malaaka yi dëm bis penc téere yi mu wàcce ak yonent yi ñu yónni loolu lépp ñoo ci yam ñoo ci maase te mooy yi nga xamee ne boo ci weddee benn rek mel na ne wedd nga lépp waaye itam li nga xamee ne moom la lislaam andi ci ay jaamu yàlla ak li mu tër ngir ñun ñëpp ñu jaar ci di ci àttewoo loolu lépp ñun ñoo ci bokk yam moo tax suñ boroom di wax ci alxuraan ne diine ji ma leen andil day mooy diine ji ma yónni woon yonent yàlla noox mooy diine ji ma yónni yonent yàlla ibrahim mooy diine ji ma yónni yonent yàlla Moussa mooy ji ma yónni yonent yàlla Aïssa te mooy ngeen taxawal diine te bancee wuute bo bennoo gi nga xam ne jullit ñi nekk nañ ko benn war nañ koo ànd alayhi salaatu wasalaam daf ko misaal daf ñu ko melal ni nga xam ne noonu lañ war a jàppalante suñ biir war koo yërëmante war war koo bëggante nee na mi ngi mel ne yaramu doomu aadama nee na jullit ñi seen yërëmante nin war a yërëmante nin war a dimbalante nin war a nekk benn daf mel na jëmmi doomu aadama ndax jëmmi daa doomu aadama ku nekk xam na ne cër bu ca euh, euh, yëgu mettit rek yaram wépp ko yëg cër bu ca tawat rek yaram wépp dootu am jàmm nee na kon jullit ñi noonu leen war a ànde noonu leen war a nekk benn euh, war a bokk ay bëgg-bëgg waaye war a bokk ay war a war a ànd ay naqar war a ànd ci mbégte mi ngi koy waxaat nee na jullit ak mbokkam dafa mel ne ab tabax nee na ni birig yi di di di di àndee di jàpp di di jàppalantee nga xam ne benn birig mënut a dem bàyyi moroom ji bu bu ko defee tabax bi du taxaw nee na jullit ak moroomam noonu leen war a ànde noonu leen war a ànde noonu leen war a dimbalante dana war di bokk bànneex di bokk naqar te buñ delloo ci attey lislaam ak jaamu yàlla yi nga xamee ne moom la lislaam santaane dañuy fekk ne jaamu yàlla yi ci bari euh, loolu lay indi maanaam li muy jur mooy jullit ñi gën a ànd nekk benn li muy jur mooy li muy indi mooy jullit ñi gën a ànd ndax buñ àndee ci la ñuy am kàttan ci la ñuy am doole moo tax jihaad ku ne xam na ne bokk na ci jaamu yàlla yi gën a màgg suñ borom bi mu koy santaane nee na li ko waral mooy ñi ñuy néewal doole ngeen ngeen dimbale leen nee na loolu moo tax mu farataal jihaad li tax mu farataal jihaad mooy ak tooñ ngeen jële ko ci société bi kenn bañu tooñ kenn ku nekk ngeen bàyyi ko ci ak liberté mu xool la ko doy mu topp ko loolu moo waral jihaad moo tax mu ne na lu tax du ngeen xeex ci yoonu yàlla ndax ñi nga xamee ne dañ leen di néewal doole ci ay góor ak jigéen ak xale ñooñu de ñi ngi naan yàlla yàlla yàlla nag ñu musal ci yàlla nag ñu génn ci dëkk bi nga xame ne dañuy néewal doole ñi nga xamee ne ñoo féete suuf yàlla yàlla yàlla na ñu dimbale ba génn nit ci tooñaay ngi gii kon loolu moo waral jihaad suñ boroom waral ko ngir yëkkati ak tooñ ak ñi nga xamee ne dañ leen di néewal doole loolu ñu jële ko fi sëriñ Tuubaa mi nga xamee ne moom lañ yaakaar ci loolu rekk la daan jàppe nit ci la ko daan bàyyee te mooy pas-pas nee na ci yàlla laay noonoo waaye ci yàlla laay ànde te mooy ki nga xamee ne moo kawe mooy ki ma jox ay xéewal nee na bépp képp koo xamee ne gëm nga yàlla rek na nga xam ne sama mbokk nga waaye képp ku gëm yàlla ci moo xam góor nga wala jigéen na nga xam ne sama mbokk nga moom Sëriñ Tuubaa mooy wax te nee na sama dund gépp ay tuyaaba ay rafet rafet la bokk na ci lim daan ñaan suñ boroom yàlla xiir ko ci mu bëgg bépp jullit moom Sëriñ Tuubaa waaye itam yàlla musal ko ci musiba bépp kàccoor nee na maa ngi lay ñaan yow yàlla nga saxal ma ci ma bëgg bépp jullit ngir jëm yonente bi alayhi salaatu wasalaam waaye maa ngi lay ñaan nga tàggatal ma bépp kàccoor te suñ borom itam dafa nangu ak ñaanam te loolu day feeñ ci ay mbindam ndax Serigne Touba ñi nga xam ne ñooy gëstukat yi nee na nee na bi ñu xoolee am mbindam la ci ëpp mooy ci ay ñaanam xeetu yonent bi la ciy ñaanal maanaam li ëpp ca la muy ñaan jëmut ci ñu ko topp waaye xeetu yonent bi ci la jëm bokk na ci rek li muy wax ne yàlla na nga jéggal bépp jullit bu góor ak bu jigéen njéggal goo xamee ne day saxal aw yiw ci ñoom ñépp waaye yàlla yàlla na jéggal bépp jullit bu góor jigéen njéggal goo xamee ne da leen di musal ci ci tooñaange ci pexey noonu yàlla nga jéggal bépp jullit ak bu góor ak bu jigéen njéggal goo xamee ne da leen di wommatal ay tuyaaba ak i jëf jëf yu rafet allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fa yattabi'una ahsana alhamdulillah alqaa'il innama almuminuuna ixwa fa aslixu bayna axawaykum wattaqullaha laallakum tuflixuun xamdan yaliqu bi jalaali wajhihi wa azimi sultaanihi wa nashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu la sharika lah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahuma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman amma baadu faqad mathala annabiyu sallallahu alayhi wa sallam attaawuna wa taraaxuma wa taxaabuba bayna almuminina fi qawlihi mathalu almuminina fi taraaxumihim wa tawaddihim wa taatufihim ka mathali aljasadi alwaaxid ida shtaka minhu udwun tadaa lahu saa'ir aljasadi bisahari walxumma wa qaala aydan almuminu lilmumini kalbunyaan yashuddu baaduhum yashuddu baaduhu baadan summa shabbaka bayna asaabiihi wa ida taamalna fi maqaasidi tilka alsharaa'ic najidu jumlatan minha li taxqiqi maslaxati al umma min xaytu quwatiha wa tamaasukiha wa tacaawunu afraadiha qaala tacaala wa maa lakum laa tuqaatiluuna fi sabiilillah walmustadcafiina min alrijaali wannisaai walwildaani laa yastatiicuuna xiilatan wa laa yahtaduuna sabiila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 fastajaaba lahum rabbuhum wala tuwajjih shay'an min al akdaari wal aafaat ila man xaatabaka bi hadihi salaa wa bi hadihi al abyaat faraj bi jaahi lmustafa an ummati yaa muxrijan abdaka daa min ummati uktub salaatan wa salaaman linnabi fi l aali wa saxbi dawi tajannubi sallim bi jaahihi wa jaahi maa ummatahu yaa waaxidan li qamaa tafadalan ala dawi l iimaani bi farajin yaa waahiba al amaani jamilu awsil li jamii al muslimin والمسلمات أمن رب العالمين اكتب صفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم هب لمن يحبونك ما يمه الرهب لوجهك الكريم وجه فرجا بلا أذى لمن يديمون الرجا هب لذوي الإيمان والإسلام خير بشارات بلا ملام محوت در عبدك الخديم يا خير ما يجود بالتقديم رفعت سعيه إليك يا شكور بكرم ومنة وبالشكور بحق وجهك الكريم هب له إجابة يا من محوت كبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا هب للذين آمنوا وأسلموا فراق فراق فتنة الذين ظلموا مصليا مسلما على رسول في حزبه يا من حباني بسول اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وتقبل هذه الصلاة wa hadi l abyaata min qaa'iliha bi qadri azamati zaatik wa min kulli man daaka bihima bi qaboolin xasan yaxbituhu fiihi kullu man lam alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu li annu xad saxani li watani bihi nafa ma anfani